Little Jamo, Axalamo, axinga, Diva one, Diva some of the killer. Little Jamo, Axalamo, Axinger. Diva one, Diva some of the killer. Little Jamo, Axalamo, Axinger. Diva one, Diva some of the killer. Little salamu aksiga Div one, mafia check Div one, div de Div a one, div de sama dökülü Dökü camı Ak salamu aksiga Div a one, div de sama laamu ak si nga Tivaouane tiif de sama dëkk la dëkku jàmm ak salaamu ak si asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu kenn ku ne turam ak santam ñu ngi fi Tivaouane dëkk bu ñu naan Saint-Pire waaw ñu am fi lu mel ni genre usine bi defar brique ak pavé mom lañ ñëwoon tay doon leen présenter suñu suñu production ak suñu matière yi fi nekk d'abord je me nomme Djibi chef de production ak technicien de l'usine BLM bâtiment logistique manufacture voilà pour ñu commencer am nañ fi pour démarrage quoi am nañ fi quelques briques yo xam mom lo la nekk gum suñu production démarrage on a des briques 20 on a des briques 20 bii mooy brique vingt euh, vingt sur vingt sur quarante moom mooy brique bi am nañ fi tamit am nañ fi tamit aussi lii lépp mooy brique vingt yi quoi mooy suñu moom lañ essayé nii quoi voilà léegi ñëw leen fii ñu xool lii lépp si les briques de vingt yoo xam ne fii lañ ko fii lañ ko defaree gis nga ko ñooy yëpp briques yoo xam ne de bonne qualité yëpp c'est des briques de vingt voilà léegi am nañ fële ay pavé aussi tamit am na pavé euh, fa ay pavé arc waaw bi mooy pavage bi quoi bi pavage rectangle la waaw bi pavage rectangle la quoi pavage de six waaw pavage de six quoi mooy rectangle yi waaw bi mooy pavage de six H bi un pavage H quoi yi mom lañuy def ci ci kër yi ci tali yi wa yi moy pavage bobu y ni am nañ ci ben stock bu am pour début la ni rek ñu a motax stock tamit ay la brique de 10. brique de de 10 quoi ah mom dix vingt la brique quoi 10 20 40 yep, ay briques de 10 il y a ay briques de 10 là briques de 15 commencé une production bi quoi ah gis Mom la la amule vous quoi vais par brique de 100 là voilà c'est des briques de 20 tamit c'est des briques de 20 quoi. c'est des briques de verre voilà léegi ñu ñëw ci sunu ci sunuy matière sunuy produit yëpp c'est des briques de vin quoi fii la boo dee xool sunu droite bi mooy bii mooy zéro trois non bii mooy trois huit di moins waaw bii mooy grain de trois huit waaw 3 8 bi select bi la ak basalte bi yëpp dañ koy utiliser bu weex bi ak bu ñuul bi waaw dañuy utiliser yëpp quoi fii ñu am fii mooy bii tamit aussi mooy mooy 03 waaw bii tamit grain de riz la pëndax bi la quoi bi yëpp tamit si suñu production la bokk ak bële nekk na la suñuy droit tamit bi yëpp tamit ci suñuy composition suñuy suñuy composant la bokk bii tamit 03 la Bonjour. C'est un immense plaisir pour moi de m'adresser à vous ce matin pour le lancement de notre unité de fabrication de briques et de pavés ici à Toaon, plus précisément à saint jupier Notre usine porte le nom de BLM bâtiments, logistique et manufacturing. Elle ambitionne d'accompagner les populations dans leurs projets de construction avec un outil de production moderne, c'est-à-dire des machines de dernière génération. Nous produisons aujourd'hui près de 6000 briques tous les 8 heures. Notre équipe à la pointe, nos équipements à la pointe de la technologie apporte une solution au bénéfice de l'entrepreneur pour le respect des délais de livraison et leurs ouvrages. En ce qui me concerne, je suis originaire de Tiwawan. Après plus de 20 ans passés à l'étranger, et précisément aux États-Unis, j'ai convaincu mes frères et sœurs d'investir dans notre pays, mais aussi dans notre terroir. Notre motivation première est dictée par un devoir de redevabilité pour, par rapport à notre pays qui nous a éduqués et formés. Mais la deuxième est l'opportunité de créer des emplois dans notre ville, contribuer à la création économique et l'épanouissement de la jeunesse. À ce jour, notre investissement en voisine les 250 millions sur fonds propres. Aujourd'hui, notre inspiration à l'entrepreneuriat tire sa source à partir de deux faits majeurs. La première est mon expérience en tant que comptable et analyste dans cette industrie. J'ai pu mesurer à quel point ces produits améliorent la construction en général et j'ai voulu reproduire la même chose chez moi. La deuxième fait est peut-être filiale, puisque notre feu père Alun Badare Ndiaye était un grand entrepreneur et industriel à la tête d'une grande usine qui produisait les sacs. Je voulais en profiter pour lui rendre un vibrant hommage pour son dévouement, son engagement pour, pour sa famille et pour la société en général. En effet, à travers l'installation de cette usine, nous essaierons de perpétuer la fibre entrepreneuriale qui sommeillait en nous et en profiterons pour être utiles davantage à la société. Je ne terminerai pas sans remercier tous ceux qui nous ont aidés, accompagnés dans ce projet. Enfin, je déclare l'usine ouverte à la commercialisation à partir de maintenant et invite les porteurs de projets d'immobilier, les entrepreneurs, les constructeurs à se rapprocher de BLM pour une collaboration fertile. Je vous remercie. Euh, tous les employés de l'usine BLM di gërëm di aussi ñi nga ñoo ñuy sopp euh, réseaux sociaux euh, ngi am bu baax pour waxtaan ak di leen xamal euh, usine bi BLM BLM bâtiment logistique et manufacturing ambition bi bi bi tax nak ñu décidé ubbi lii mi ngi soqi ko ci ñaar man euh, def naa euh, état immigré là def naa plus de 20 ans États-Unis ma fa nek yépp maa ngi liggéey ci comptabilité ak analyste analyste là aussi ci usine yoo xamante ne nii lii la ñuy liggéey ak produit yi ñuy liggéey te yàgg ba ma fa yàgg gis naa ni genre usines yo xamanteni ni euh ñu ngi utiliser technologie dernière génération bi euh, ampleur li muy indi ci société bi ñun nag waa Tiwaawoon lañu fi lañu soxé ko fi lañu yaro yaroo euh, ñëpp xam nañ ñu ci fi donc ñu né buñu démé bay ubbi lu melni wala ñukoy koy ubbi fenn nañu ñëw fi fi nga xamanteni fi lañu soxé ko ñu ubbi ko fi te suñ ko fi ubbee gis nañ ni dina am euh lu muy rapporter ci économie bi mais plus précisément aussi li muy rapporter ci jeunesse bi euh ci créa trou création d'emploi motax ñu ubbi ko fi ñun nak ku ñu xam aussi xam ni euh ñun suñu suñu papa mom entrepreneur la won amone ay société donc li du lo xamanteni ni manam dañ ko mënu ma dañ ko nàmp waaw foruñu ko daal dañ ci yaru voilà loolu moo tax ñu ne dañ koy ubbi fii ñu ngi gërëm nag ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi jàppale man précisément maa ngi gërëm sama rakk yi yu góor yi ak jigéen ñi ci wóolute sax gi ñu gi ma wóolu ba bi ma ñëwee wax ak ñoom rek ñu ne ma yàppaat problème bu fekkente ne loolu ngay def ñoo ngi sa ginnaaw nag moo tax ñu ubbi di ñaan nag euh, ñi nga xamante ni dañuy construire entrepreneurie yi ak ñëpp ñu ñëw rapproché wu ci BLM comme ça ñu liggéey fexe nu ñuy def ba suñu dëkk jëm kanam voilà donc ubbi nañ kii bi à partir dorénavant à partir de maintenant léegi mën nañ lañ commencé di jaay ñu ngi woo ñëpp pour ñu ñëw ñu liggéey defar dëkk bi. Euh, ci investissement bi pour pour l'instant fonds propres la ñu defee investissement bi. Manak ak samay rak dañu on a investi à peu près 250 millions sur fonds propres jëndi machine yi jënd place bi dis yëpp pour def ko euh, investissement bi nag euh, li target bi file, mais mën nañu euh, produit yi ñuy defar ak logistique bi nga xamante ne na si produit yi mën na dem mën na dem fépp mën na fii ba Dakar ba fépp parce que dinañ am nañ ay camions yi tout ça yoo xamante ne nii ku ku def commande rek fu mu mënti nekk dinañ la ko mën a livrer voilà suñu numéro numéro yaa ngi nii si ginnaaw mhm. donc ku woote si numéro yi am nañ aussi website mi ngi tudd blm sénégal point sn ku fa dugg mën nga ñu yónnee aussi boo soxlaa ay information mën nañ la ko yónnee am nañu ay plaquettes avec tous les informations nécessaires avec les prix et tout te bu te aussi dépendre na ci quantité bi nit ki di jënd yépp boo boo ñëwee même prix yi c'est des prix c'est pas des prix yoo xam te fixé na dépendre na ci quantité bi ak euh, yenn saa yi promotion yi am ak yooyu dinañ la gën a wàññi pour faciliter la tâche I would like to take a moment to talk to my friends and family in the diaspora in America. Uh, I am happy today to announce the basically the grand opening of BLM, which stands for Bâtiment, Logistique and Manufacturing. Um, it is it is installed here in um, Tiwawan in saint Pier. Uh, it is a, a company that makes bricks, blocks, and pavers, and other things, including the logistics. The reason why we open it is because um, for two reasons. One, of my experience in the industry as an analyst and an accountant. And I know how important it is to have a vibrant company that makes really solid uh, brick blocks and pavers of quality. Not only that, the second reason is so that we can contribute in the development in the economy of our company and also help the young who are thirsty for uh, to, to, to be productive in society we are inviting everybody, all entrepreneur, anybody who wants to build, anybody who is in a commercial to come work with us because while we're working together, only when we are working together is when we can help develop our country. I would like to thank everybody who's been helping us in the installation in in this endeavor because one, two, or three person is not able to build anything. We need, it takes a village to build anything. So we thank everybody. And as of today, we, uh, this place, this, in, this business is open. And then anybody who's a commercial who wants to build can call us, contact us, and then we can collaborate. Thank you very much.